Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy ñu Serigne Touba santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bii yàlla def nag ci ñaanam nga ak liggéey bu tedd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak pay la ndax na mu ko digle woon daale ci dem ci daale taalibe yëpp nag seenu xeet tax màggal di àgg fii tey ba waxatuma la lañ ci yaakaar te mooy li ëpp solo te li ko tax a jóg di wàllu ruux lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg yàlla lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg Sëñ Tuubaa ci pay waaye ci wàllu àdduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma réew mi waaye ci Afrique wala li ëpp doole sax ndaje yi ëpp doole ci àdduna mëne soo ko caay bare muy dugal lu baree bari tam ci wàllu koom-koom muy loo xam ne réew ñëpp lay jëriñ kon li ngeen tudd tey relancement économique Màggal Tuubaa moo moo ci jiitu ndax naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag bu ñu amee lu ñu bëgg a jaay dañ koy xaar màggal gi ngir barkeelu bis bi kon nag yàlla def Seex Mahmoud Muntaxa duñ ci sañe seq benn jéego ci lu dul ndigalam ab taari bi itam du laaj ndigal day toog bañ jox ko kon ñun li ñu war mooy toog di xaar ndigalu sëriñ bi bu sëriñ bi santaane ne jox naa leen ndigal ngeen wëyee liggéeyu mag liggéeyu mag li ngeen ko daa defee ci lañ door a tàmbali ndaje yi nag li ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na Serigne Ousmane moo ko jiitoon ni ko baaxoo ci ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko nañ ko waroon a defee séntu lañ ci daa séntu te ji itam taxawalaat ko ci ndigalu kilifa bi nga xam ne ñoom la fi teewal tàmbulee ko ci ministre de moom bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu taxawal ko. moom itam mu def ko nag ci ndigal président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi leen di di rafetlu jotaay bi itam ñu doxee di ñaan itam ñu àgg ca màgg ka jàmm te suñu borom dimbali ñu mboolem li ñuy tiit ñuy ragal yàlla mosuñu ci te suñu xel war ca dal bu baax a baax war a dal xel yi mooy eh, yaakaar ci ndimbalu yàlla waaye yaakaar ci. pëstéef ak ndimbalu Serigne Touba ngir xam ne Serigne bi kat lépp loo ko sëf te defe ko pëstéef ak ngëm daan la fekk si ci loolu kon ñu ñaan ñu àgg te lii nga xam ne moom la adduna sépp ragal muy mbas mii nga xam ne suñ borom ci coobare moo xam li tax mu def ko fi yàlla jeexal ko wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal gii bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir teg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq koog ñi bokk réew mi nekk ci biir àdduna yi seq koog waa àdduna kon mënuñoo bett ko ni ko Cheikh mu Moutakha di waxee looloo waral eh, lenn ci ndaje yi nga xam ne sax daa lañ ko def te xam ne mën naa jur fitne wala ay jàngoor di ci juddoo yooyu sax wàññi ko mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko def ren ji yàlla def na ngir xam fi àdduna toll tax ñu soppi ko def ko ci xarala yi ngeen di tuddee léegi visio nga xam ne ñii dañu nekk senegal ñi nekk Arabie Saoudite ñi nekk Iran ñi nekk euh, Irak ba Syrie ak réew yu bari ba Amérique France am na ñoo xam ne conférence yi noonu lañ ko doxale kenn ku ci ne fa nga nekk nga di ko dund ba mel ne ni nga ko daan defee ndax màggal gi itam xam nañ fi jamono toll waaye nag waruñ ca àgg itam te dañ ca daa jariñoo di manqué ndax yaay yëpp mën na mënees na ko sàmmante kon Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam ne na ko kilifa bu njëkk yaa daa defee te tànk yooyu jaar moom bi wéradi gi xewee la Serigne Touba waxoon ca peste la waxoon mbindeefum yàlla la yàlla nga fa wàcce waxtu bu ba jaaxle mu jeex kon képp ku gëm yàlla yëpp dangaa war a ko ci loolu xam ne suñu borom moo ko doxale noonu ndax moom bi ko wàcce moo xam ne tax mu wàcce ko fi ndax yàlla kenn du ko bu tax la ko ca war itam la ci jëkk mooy ñaan loolu itam def na ko waxtu wu nekk mag ca ko santaane ñëpp ndax ab euh, euh, ab jullit addu'a silaaxul mu'min ginnaaw ba loolu jàll itam li nga xam ne adduna da ko indi te lislaam santaane ko ndax ne ko sëriñ bi waxee ne rek walaa tulquu bi aydiikum ilaa tahlukati loolu lislaam moo ko santaane kon ab jullit du xaru kon sëriñ bi lépp lu mu def da koy natt ba mu dëppoo ak sariya mu wóor ko ne lii sariya moo ko ci sant ci diineem te du yàq mbirum àdduna waaye nag suñ digg ak suñ borom moom mooy jiitu ndax loolu tax yàlla wàcc ñu fi kon sëriñ bi loolu la jiital waaye xam ne itam wàllu ko àdduna bi itam suñ borom moo ko indi ndax dafa indi kilifa diine indi kilifa àdduna kon li nga xam ne nguuru Sénégal tëral na ko te ànd ko waa àdduna ñëpp maas ji loolu itam sëriñ bi ni ko docteur yi waxee mu wàcc ñoom sëriñ bi dafa santaane ne ñëpp jëfe loola yëmu ca ndax yëmu ci wax kese waaye da ko boole ay jëf jëf ji mooy ba wéer diggi tàmbale lay yëkkati lam ci man ngir xam ne lu jëm ci Sénégal gépp état bi ñoo ñooy seen jiit mu jël ko teg ko ci loxol ki jiit réew mi ngir xam ne la Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké daa wax ne doom bu sax ci sot la bokk loolu ci jublu ngir bëgg wane ci yoon ngir ñëpp roy ko ci xam ne lii kat ñëpp war a boole seeni doole ak seeni pexe ngir yàlla suñu doom jële ko fi ci itam tàmbalee ko ci Touba mboolem lu ko waroon ci ay liba ci dëkk bi li ko wër yëpp mu yëkkati alali boppam tasaare ko séddale ko ba noppi sant ko taalibe bi Sëriñ Tuubaa ak daayira yëpp ak seex si ñëpp maase ci kenn ku ci ne ña nga tane nga dimbalee ni ko alxuraan santaane li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu llah kon nag sëriñ bi ko xam responsabilité bi la kon lépp lu ko waroon ci wér dige gis ngeen itam ba nëgëni li xew lépp itam gis ngeen jumaa Tuubaa ba nëgëni li santaane bu ñu julli nañu soriante ak mboolem jàkk yi nga xam ne aju ci moom kon moom pour que ëpp responsabilité ci réew mi kon bu soñoon taalibe yi ak jullit yi ak ñi dëkk ci réew mi ñëpp wér bu soñoon ñëpp nekk ci jàmm ndax seen jàmm ak seenu wér mooy jàmm moo tax sëriñ bi doogu gi mu ci am ak lim ci santaane sëriñ bi bëggut feebar bi di law ci àdduna si kon Cheikh Mouhamadou Mountakha bëggul lenn luy indi feebar bi law moo tax waxtu ne muy fàttali nit ñi di leen wattandikuloo lépp loo ne mën na indi jàngoro ji wàllaate kon loolu itam na ko ñëpp xamee noonu yëmu ci ndax euh, dañuy wax ne sunna mooy lépp loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala mu jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam te weddi ko sëriñ bi nag yëmu ci wax waaye dafa wax ñëpp di dégg yëmu ca mu jëf ñëpp gis ndax ko ne xam na ne bu ngeen gisee mu jël masque yi di ko takk lépp lu mu ci juru mooy wan nit ñi aw yoon ak wan leen fi ñu war a jaar te loolu itam yaakaar naa war naa am jeexit ci ñëpp xam ne ndegam sëriñ bi nga xam ne mooy suñ kilifa moo bët moo moo ko jël di ko jëfandikoo kon aw yoon la ci képp koo xam ne war nga ko ma def nga def ko kon ni mu ko defee ni la ko sant ñëpp képp koo xam ne mën ngaa jël masque yi di ko takk. ñi xam ne nag xëy ne am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam ne tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa la wala dirara doo lool te doo lool keneen doon kon sëriñ bi mu ngi ci soñ ñëpp di ci sañ soñ bokkiteel bi nga xam ne euh, xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale ak wér te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér topp kon loolu tam li nga xam ne euh, médecin yi ak docteur yi santaan ko xool ba xam ne lii mooy lii waral loolu na ci ñëpp maase ci góorgóorlu ji wattandiku ci ba ci biir loolu sax waa daayira Muqaddamatul Xidma incha allah ci biir jumaa ji nga xam ne xam ngeen mooy barab bi ëpp fu nit ñi daje di fa seere ñoom seen yitte seen xariñ incha allah ñoom taxaw nañ ci ba xalaat ci bu baax ba fas yéene tërale ko noo xam ne ñëpp danañ siyaare te danañ sàmmante li nga xam ne àdduna indi na ko waxtu wi laaj ko kon nag ci biir loolu rek loolu mooy soññe yi nga xam ne ndax màggal gi dafa dikk ci contexte boo xam ne suñ borom a ko tudd noonu waaye rek ñu ngi rafet ñor rek ci ne bu màggal gi jàllee rek suñ borom mën na fee doxe lépp tàggoo fi dem ba faaw kon dañ koy ñaan te ci ñaan ndimbalam ak yërmaaneem di sant nag. président makki Sall ci cant gi ndigalu bu Mouhamadou Mountakha démb la ma waxaat ne naa ko jot li cant cant gi li ko waral mooy bi màggal Tuubaa gi jàllee daaw ba ba gàmm ba mat ñaar fukki fan sëriñ bi damay yónni ci moom yaari mbir benn bi mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi at mu jot nit ñi di ñu yokk kon waris na ci def yitte ngir xool ni ñuy fexe ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne demewaat ba ca mooy ku ne xam na ne màggal gi dugg na ci biir nawet mbedd Tuubaa yi bari na ci loo xam ne état état bi defoon na ci fukki milliards waaye Tuubaa dafa rëy la koy defar assainissement dana mat téeméeri milliards wala mu ëpp ko kon da ngay tàmbalee fenn dem sëriñ bi. yónni ma ca moom ñaar yooyu mu bokk ak yeneen yitte waaye yooyu mooy li ci gënoon a jege màgg bi ba mu ko ko waxee itam mu def ci yitte yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yëpp bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi waaye ci biir wax ji moo xamal ma ne Touba ndox mi dafa am dañuy wax plan directeur ñoo xam réseau bi ndax li cëpp dafa yàqu kon danaa wut benn cabinet mu def itit xool réseau bi ñu xool ni ñuy saafara ndoxum Touba ak ndox mi ne xam ne fa ñëw ak ndox mi bañ a màggati loolu itam dox na ci jéegu ba wax nañ ma ne ki nga xam ne mooy cabinet bañ jox liggéey bi ci weer septembre bi dana tàmbali liggéeyam loolu itam kon def na ci te def ci pëseef def ci taxawaay kon sëriñ bi ko ci sant ko ba ca des it mooy wàllu assainissement bi itam assainissement jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa saase la jox ministère bi ko war ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël bis ak 23 milliards boo xam ne ci ndo ci assainissement Touba la jëm bokkut ak assainissement bi jëm ci fosse yi ñu doon wax ci fan weesu waaye bii ci wàllu taw bi la yàlla def na itam ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca waroon naa tàmbali sax laata màggal waaye bi mbas mi xewee nag mu am ak yéexte ndax xam ngeen ne loolu àdduna sépp la loolu itam ñu nongul leen waaye incha allah bu màggal gi jàllee ñoom danañ ko danañ ci jublu ngir àggali liggéey boobu. te loolu itam bu àggee daa doon loo xam daa loolu nag bokkut ak tëli yeeg yeneen yi ci des ak làmp yi nga xam ne senegal gépp la ko def waaye beral na ci Touba wóoroobu ñaari milliards loolu itam sëriñ bi ko ci sant bu baax di ko jigéen ndox mi itam def na ci ñaari milliards ak ñaar ak téeméeri million kon loolu jéego bu rëy leer kon sëriñ bi ko sant bu baax di ko gërëm ndax euh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne du sant ku ma deful kon lépp loo xam ne sëriñ bi gis naa mu ci dëkk bi ndajaam xam na ne bu waxee moom mu dégg ko te la mu ca mën dana ko jël moo tax lu mu ci yëg xam ne manqué na wala war na ko def sëriñ bi dana ko ko bëgg ko waxee itam fa saasa la mu ca mën dana ko jël ndax man ñi ne ci diggante bi xam naa ci dara kon ñu ngi sant ñëpp diggante ñëpp di ñaan màggal gii nga xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la ñu àgg ca jàmm génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak dalum xel ànd ceeg rafet jort ngir xam ne sëñ Tuubaa kat mbiram euh, suñ borom feggal ne ko ci aafatu ak kaddu kon suñu xel war na yaqin sax la ji war a am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala